yàgg nga ci li nga xamante ni rek moom mooy millier art milieu cinéma tey ñu gis ay série yoo xamante ni euh, euh, maanaam euh, doy na waar loolu ci réseaux sociaux bi ñu bëri dañ koy ñaawlu ci yenn actrices yi ni nga xamante ni noonu la ñuy defee série lu ci mel ni Cœur brisé tey tey naka nga gisee série actuellement Sénégal ni ko xale yi di joué. xam nga lan moo rey série yi fi mu nekk toppandoo man ba toppandoo amee laa wat sama sikkim kenn gënuma woon sa xale lool te sikkim bu weex tàll laa yore mu fees del comme ñoom déjà ñoom ñëpp koo ci gis mu kii doo xam ndegam mooy ndey wala mooy baay wala ki cest dafa am loo xam ne moom lay joué mais munu ñoom ñëpp mënuñu bokk di yar sikkim pour feeñ sikkim bi pour lan la dañu toppandoo nigériens yi ñoom ñoo fi génne ñoom ñoo ko fi génne te ñoom dañu ko jéggaani ji ci yeneen kii lañ ko gis alors daal di yaakaar ni daal euh, bala ngay nekk artiste wala acteur jeune dire dirais même pas artiste bala ngay nekk acteur ba wow ci koŋ foog nga saxal sikkim mutu ko qu'on soit nous-mêmes xam nga dafa am mbind moo xam ni mbindu improvisation la saa yi nit ki day am xam-xam bi nga xam ni xam na improvisation naka lañ koy defee qui est basé sur trois règles sociologie psychologie ak philosophie sociologie pourquoi parce que environnement bi nga xam ni personnage bi moom lay évoluer fokk moo xam ko psychologie c'est le caractère donc philosophie li tax ma dugal ko mooy du benn personnage boobu rek moo am donc il faut nga philosopher par rapport au personnages yi nga xam ne ñoo existé en fait dans l'histoire pour xam sa interprétation indi ko dans la justesse et la personnalité du du personnage xam nga fii dafa yomb trop j'ai toujours di que ni boo bëggee jouer film jouer le mais dafa am benn raison boo xam ne nii mooy la génétique daf ci wékku lool lool lool lool La génétique est un ensemble. sa parle du sentiment et de l'émotion. soo xamul nag ngay conduire un sentiment en émotion bul jël rôle bi bàyyi ko mais fii ñàkk dëggu ak bëgg xaalis bi dañ leen yóbbu ba nga xam jël loo xam ne moo diis gann si ñoom te attanuñ ko mais rax nañ ci parce que euh, au lieu nga dénk rôle bi ko xam ne moom la déedéet mais de genre neexalaate la bu fe boo dee jigéen bu ñu bëggul ci yow dara duñ ko jël bu ñu bëggee ci yow dara nag loo jox ñu rek ñu dagg wala ñu jël la par exemple daal di def la nga nekk euh, l'acteur principal dafa waroo nekk l'acteur principal ou l'actrice principale yooyu yëpp mais nit ki dafay mët li mu doon c'est pas pour rien ñuy def euh, casting bu doon théâtre distribution la ñuy wax du casting donc théâtre distribution la dañ lay seet ci wàllu xam-xam ak euh, sa mën waaw sa technicité du théâtre est basée dans le dans le théâtre et qui répond d'ailleurs à la définition la règle des 3P pensée parole et plastique su boobaa ñu xam ni yow def nga jàng nga ko te xam nga am nga xam-xam bi non non en réalité non noon dama gis naa programme bi fii parce que yàlla may na ma loo xam ni mën naa ko ci seetaan mais c'est-à-dire man ni may seetaanee dafa métti parce que chaque fois ma seetaan dara euh, ñu génn ko muy téléfilm man damay wëlbatiku di critiquer sama bopp di ma di laaj sama ndax est-ce que nii lay defee nii lay gisee ni ñoom ñii ñu ko wone ba pare beneen bi nga xam ne c'est plus méchant euh, su fekkee ni lii laay def ce n'est plus la peine war naa jël sama retraite reculer d'ailleurs à propos de retraite am na ci benn acteur boo xam ne nii dañu mës a daje mu ne ma mais grand ma ko ah, mu ne ma mais yéen kan ngay jël sa retraite kan ngeen di jël seen retraite ngeen bàyyi ñu terrain bi ma ne ko mais terrain baa ngi noonu xam nga un acteur de cinéma nu mu mënti mel il correspond à un personnage bu fekkee ni nit ñaa ngi toog ñu tànn ko ci personage boobu parce qu'il fait le personage il n'improvise pas le personnage il est le personnage loolu moo am solo ci film ci casting mais su fekkee ne amul mot googu ñu choisir keneen mu lay naqari loolu yàlla fi nekkal ñëpp bu ko kii am na ñoo xam mi ñu acteurs yi ñuy seetaan ci seen kii yooyu yooyu loon par exemple boo gisee léegi dafa màgget weex fur am ay rôle am yuñ koy dégg ganu ganu mu ciy yëngu sax parce que ñoom ñëpp ils sont physiques athlétiques yooyu parce que aussi duñ bàyyi seen bopp ci yooyu dañuy entraîner def seen lépp ak yooyu man vélo bi ma jëndoon fii pour ma maintenir dama ñëw fekk samay doom dañu màgg di utiliser vélo bi ba nga xam ni dafa mujjee dajee ñoom ñoo ma ëpp foofu man dama ciy yéeg di kii ma def maintien mais bon finalement ma bàyyi vélo bi et je pensais même parce que bu bu ñu yéegoon ci kaw tey nga gis espace bi mu fa bàyyi rien que pour jënd matériel pour yooyu am bon xëy na bay wees na mbuus mais nga jàppandi ko mu jàppal la parce que ne sait jamais la vie n'est pas courte pour un acteur ni aussi un comédien bon su fekkee ne wàllu xel bi la ni nga koy nàmmee sport bi yëpp mooy di def lecture di def lecture tout le temps tout le temps tout le temps wala tu te de ce que tu avais dépassé ay textes yoo xam ne ñu moom nga yore man j'ai des textes yoo xam ne ki datent de 1972 ba léegi waaw waaw day liggéey sa mémoire méthode boobu mën nañ ko dugal ci école yi jàngal gos yi ñu am xam naka la ñuy naka la ñuy utiliser seen mémoire aussi daf leen di aider boo gisee tubaab yi fee di jël booy bi à lage de de sept ans dugal ko école ko yooyu di ko def loo théâtre mais looloo tax nañ muus xam fi ñu métier bi ñu yore l'utilisation de ça dafa néew bu ñu yaakaar ni téléfilm leeg ak yenn série yeeg yooyu loo wax ñu ne série fii alors que yow feuilleton nga def yooyu aussi war nañ ci def ay émission pour jàngal nit ñi pour ñu am xam-xam bi xam lan mooy série lan moo différence série de ak euh, feuilleton une histoire qui est continuellement euh, dans l'espace jamono ji tollul foofu aussi tam am na ñoo xamante ni peut-être na ngeen daan jouer neex na trop mais léegi euh, comme Sénégal dafa xaw a changé nous sommes au vingtième siècle tant que defoo li nga xamante ni loolu la Sénégal yi bëgg maanaam ñu jàpp ni boo ko defulee série du jar moo tax ñu koy def. mais naa tontu foofu ci lu garaaw garaaw xam nga ñun dañu basé woon ci les faits divers daan ko traité donc on était dans le Sénégal dans. benn sphère boo xam ne nii c'est entre sénégalais li ñuy def ñoom ñoo ko moom donc il se retrouve là-dedans ñu doon ñaan yàlla dem ubbeeku vraiment ba li ñuy def bu méngoowul ak cinéma mu am approche su cinéma bi série yi commencé dugg maanaam série yi sax man maa ngi yóbbu sa bopp déjà en fait feuilleton yi parce que c'est une histoire qui continue kooku mooy feuilleton la même histoire quand ça continue feuilleton la mais série c'est des histoires mun na am benn thème ñu accroché ci mais benn ñu changé thème yi ah donc bu ñu ci defee lu bëree bëri bari loolu ñu tuddee série donc euh, léegi yow xamoo ndegam feuilleton la ñu def wala série ku jóg rek tëb ni série ku jóg rek ba pare ñu wutal ko bande annonce boo ko wutalee bande annonce koy dootul série boo ko wutalee bande annonce lan ça devient quoi ça devient benn genre feuilleton donc une histoire boo xam ne nii qui peut dater un an diffusable sur un an et c'est la même histoire mais qui évolue loolu mooy feuilleton mais bu dee série c'est des histoires et des thèmes yoo xam ne nii différence bi dafa am solo joué par une équipe ou joué par Euh, un groupe ou plusieurs groupes donc yooyu la quoi il faut que waxtaan ci créer ci genre émission boo xam ne ça permettra vraiment à ceux qui veulent évoluer dans la connaissance du métier wallahi jarul a séddee donc euh, ñu évoluer noonu mais am xam ci li ñuy def moo gën ñu jóg wax lu nga xam ne nii lu kenn xamul la et puis ça tue en fait le métier li ñu xamul loolu la nañ leen jàngal nañ jàngal nit ñi lan mooy lii lan mooy lee lee ak lii ak lii man léeg-léeg ma tasanteeg ay acteurs yoo xam ne nii je les apprécie parce que man j'apprécie tout le monde tous les gens qui évoluent dans ce métier je les parce que dafa metti nga jóg bëgg dara bëgg ci réussir xamoo ko nga dab tasanteeg koo xam ne nii wóor na la ni yàlla ko may xam-xam ci li muy def nga weccoog moom xalaat ngir évoluer doo wecceeg moom xalaat pour néewal sa bopp nii néewal ko moom mais reconnaissance bi amuñu ko koo ci waxanteel ba kii rek mu daan ne ah li li ñu tàmm di def eh, day nganda ngandalu rek mais xebul dara wala nga dem ci ñoo xam ne yii ñoom ñoo lay wax loolu kooku looy demee ci moom looy wute kii yow am nga ko yow jeune nga ku bees sax nga nangam nangam yooyu boo ko dugalee ci xelu nit mais du sotti c'est pas bés na tàq rek ñëw alors il il il domine en fait euh, le le l'ancien qui est là suñ defee noonu on se respecte même pas mutuellement alors que l'ancien il est là quand on a besoin de lui dem ci moom laaj ko du dara wàññiwul ci sax xam dara néewalu la c'est que dafa am loo xamut mu xamal la ko école bu mu fa dugalee nit c'est pour que mu xam di nga gis ñuy changer maître ñaata sa parcours scolaire Euh, dégg nga boo kii élémentaire est-ce que c'est les mêmes ñoo lay yore euh, le CI à CM2 da ngay dañuy changer nu évoluer rek changer wala ñu ngi gis ñoo xam ne nii ay instituteurs lañu jékki daal di ñëw encore renforcer la connaissance euh, euh, pour que jeunes yi liggéey ci école boobu wala ñuy jàng ci école boobu am un niveau ñu gën ko yokk. sur le plan pédagogique yooyu dafa dafay jouer ci xam-xam bi dafay jouer ci yow nga évoluer bëgg may xale yu ñu ñëw ñu tette leen aussi tamit tette bi du dara lu mooy xamal leen lu ñu xamul woon parce que métier boo dugg am na ndorte te kam ku fa fekk bu ko wax mu na ko randul jëlal ci la mu xam nga boole kook li nga xam àddina dem ci kanam c'est un am na solo li nga xamante ni wax nga ko ñu bàyyi la rek nga daal di tàggoo ñuy seetaan xam naa ne beneen yoon incha allah dañuy ñëw spécialement def émission ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllum euh, feuilleton série ak lu mu ci mën a doon. ak <laughs> lay di gërëm si murit bi ma doon ak sëñ Muntaxa waaye bàyyiwu mën ci benn këru diine ndax fu nekk la am mbokk ak xarit ak xame ak am di jàmm. Sénégal ci kanam Sénégal na neex ñu yéeneente jàmm bay coow di def jam Sonko ñu réintégrer ko encore dans ses droit vraiment euh, àddina neex quoi gis nga ni inclusivité dafa am solo parce que day yokk niveau day yokk niveau par exemple ci bu nee élection yi la démocratie day day day gën a yokku day gën a yokk ci kaw kii ñuy bëgg a xañ ñu jox ko ay wareefam ak wàllam mu xam ni bokk na ci réew mi donc loolu lu ci indi histoire ak ndëgg sërëxal ak bañ nga bokk mel ni yaay yàlla yaay def lépp mën lépp def te ku la neex yàlla euh, sampul euh, kër gi muy Sénégal pour que nit am droit xoolal nit ñi ñi war a bokk ak ñu warut a bokk moom mooy tànn jëmale nit ñi ci walla xiir leen ci kenn wala xiir leen ci keneen loolu moo fi ne ñu war a gëm yàlla surtout ànd ak nag dëgg ak jub di teg yëf ci yoon di teg yëf ci yoon loolu moo gën ci ñëpp bu ko defee Sénégal day neex ca a été un tonton di kontaan bu baax a baax itam ci disponibilité bi di leen jox rek di daje yéen ñi nga xamante ni rek yéen dañuy bàyyi xel fii ci Equivox TV très bientôt ak beneen invité d'ici là portez-vous bien et restez à suivre nos programmes sur Equivox TV